wa jëw wisan na nga daganal maa la nga xam ne laa yu watti du àggale laa yu atti mooy cosaan min xaradin ci gépp xarad xaradu mooy loo xam ne aw melolawu faaw ci jëmalay tax waaye mënta beru di xam nga ne xiif wala mar wala sonn wala noppalu wala rafet wala ñaaw yépp ay melo yoo xam ne day tax ci jëmm rek waaye mënta beru fee ne léegi nga jàkkaarloog moom yooyu moo tudd xarad lil xay bi ci ayub fi xaqil mala ci àqi mboolem yonante yi mitlal maradi kem tawat in lam yëkkun ndéem nekkul moom tawat ja mu naffiran di aji fajloo nit ñi maanaam di aji dawloo nit ña misla jusaamin kem ngaana wa barasin ak siti fal kullu képp min hum ci ñoom du ihtiraamin boroom ak ormaal la gannaaw ba la waxee yett melo ya sax ci ku yàlla yónni ku ne ak yett melo ya jomb ci ku yàlla yónni ku ne mu tegal la ci loo xam ne mën naa am nag ci ku yàlla yónni te loolu mooy lépp luy gaar doomi aadama yi ci des ñu ki xiif ak mar sonn ak noppalu tawat ak wér mu wéy di wéy rek yooyu yëpp ni muy gaare nitu kese dana ko di gaare ka yàlla yónni ndax sax ka yàlla yónni balaa gën a mat dëgg-dëgg la ko yàlla yónni mooy mu dem ba tollu nit ñi maaseeg ñoom ñu xam ne kii ab royukaay la waaye bu melee ni malaaka rek du lekk du naan li dal doomi adami du ko dal doomi adami dañu dal lay ne ak ah, ki yàlla yoni kat du sun borom mënuñu nu limu man waaye nag bu wàccee wàcc ba tolloo ñoom yam ak ñoom ci yooyu yépp rek daal di xam ne kon loola mooy gën gaa mati ab yonante moo tax sunu yonante bi li muy màgg màgg bare bare ci noonu booy jàng ay jaar jaaram ak alquran da koy andi bu baax a baax tawat ji nag moom bu dee tawat ci ñi daw yonante ba yàlla du ko teg mukk loolu du mën a ànd ak woote ñu wuy si la ne ngaa naag siti yàlla du ko teg mukk ak yonante moo tax mu ne yàlla ormal na leen ci yi demee noonu ba du leen laal amal bu yowoon daal xeeti jaay yi wa shiraaw ak jënd nikaaw ak takk soxna wan xawuxaa ak lu mel ne ñoom min ku limaa ci lépp loo xam ne allahu yàlla abaaxa daganal na ko falaa yasiiduhum du leen dolli siwal ujóori ndare ay yool la dal karimi fa aji tedd ja al akrami ka gën tedd ashakuri sante kat ab nag bu dee def lu dagan mel ne jaay ak jënd ak tak soxna yu demee noonu loola da ko yokk sax tuyaaba ndax xam nga ab bu jaayee ca la ñuy xamee ne noonee mu jaayee noonu la ñu war a jaayee bu jëndee noona bu takkee soxna noona mboolem xeeti jaagaaram rek royukaay la bu yàlla yónni ñu war ko roy kon nag koo new yoon ku ne yàlla fay la tuyaaba yi wane aw yoon moo tax mu naa seenub jaay ak seenub jënd ak seen tak soxnaa yu mel ne yooyu day yokk seen tuyaaba ak seen daraja fa seen borom bi nga xam ne loo def lu mu néew néew def lu mu néew la ko lu bare bare bari moo tax ñu naa yàlla chakoor la ab santekat la amma dalilu ndaal tegtal ba ala sidqihi moo ci yeenug dëggal wa mujisaatun ay kiimtaan lay doon anzala yoo xam ne wàcce na leen aljalilu aji màgg ja makaana qawlillahi ci barabub wax yàlla yàlla màgg na ne woon sadaqa dëggal na xabdiya sama jaam bi dra bii fii maa ca la nga xam ne saxaa jëf na ko aw nataqa wala mu tudd ko mooy rek wala mu wax ko daa wax ni nag li ñuy xàmmee ne yonante yi wax nañu dëgg yàlla leen yónni mooy yàlla bi leen may ay kiimtaan ba tax ñu gëm leen bu fekkoon du ñu woon ay ndawam du leen may ay kiimtaan yu tax ñu gëm leen da leen di gàccaayal ñu weddi leen toroxal leen ab yonante bu dee woote yonante li ci ëpp ñamu taseer jamono dañ koy wax ne ko defal nangam lu gëm la yàlla mi koy dëgëral nag ba def loolee nag ba tax ñu gëm ko te la ñuy xamee ne kon yàllaa ko yónni moo tax kon kiimtaan yi yàlla ma yonante yi ba tax ñu gëm leen daa wecci suñu borom ne woon kooku kat sama jaam la lu wax maa ko waxloo lu jëf maa ko ko jëfloo waxadatu rusuli li mu yonante yi mu ñett la su ma yaaw topp fukk ba adahuma yooyu nekk na ci seen gannaaw ñoom ñaar muhmalu siinin lu ñu neenal siin maanaam rek siin bu ñu tombut lañ jublu ci lu ñu neenal siin fa yan na nga wattu dafa am ñu yàlla wax yu ba noppi ne leen jot li ko moom la ñuy tuddee almursaloona am ñoo xam ne yàlla wax yu na leen xamal leen yoon waaye joxu leen digalul jotali ñooñu mooy al ambiyaaw mu ne nag ñu yàlla wax yu ba noppi wax leen jot li war nañoo mat li mu jay sun jay sun jiim gi ñett la yaa gi fukk la sin soow si ñetti téeméer la kon nag ñu yàlla yónni li leen ngeen jot li ñetti lañu ak fukk ak ñett amma jamihul ambiyaa i ndaal mbooleem ñañu soloo war rusuli ak yonante ya faqadun téeméer lañu ak ñaar fukk ak ñeent minal uloofi ci ay yaa rajulan yow waay alayhimoo yal nekk ci ñoom aska salaatillahi gën jaa selli teralu yàlla maxa salaamihi ànd ak dolli wóoloom bila tanaahin ci lu dul daytal maanaam ci lu amul fu mu yem daa wax ne nag ñu yàlla xamal aw waaye néew leen ngeen jot li kenn kenn ñoom ñoo bari ndax boo leen booleeg musaloon yi nga weesu léegi mooy ñi am digal jot li daañu mat cent vingt quatre te seetlu nga ne ñi ci am digal jot rek mooy trois cent treize yi ñett téeméer fukk ñett mu ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla dooli leen teraanga jàmm ju sax faw bañ am fu mu yem fas lu li ab dog la fil yow ca bis al axiri bay aju mujj kafaana yal nanu fegal kafaana yal nanu fegal allahu yàlla taala kawe na ahwaalahu wattiitam ya donc bii nee fi lay jàngalee nu ñu war a gëmee bis mu ñaan yàlla fegal nu tiit ya nga xam ne moo cay am bis penc moom bokk na ci yi nga xam ne alxuraan ci boppam leeral na ne warees na koo gëm دنگ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا كن نك مو دال ديكوي تود ايمانكم سيلو گم بل تي بسبا تصديق مودي اك دغل بيشي تا موم وبالذي اك لاغا خامني xadistawaa làq na ko maanaam ëmb na ko rek ëmb na ko fanta bi na nga yeewu gëm bis ci moom nee na mooy rek nga gëm ne bis bi ci boppam lu ñëw lay doon yàlla rek xam na kañ waaye su waree ñëw rek ñëw te it lépp lu alxuraan tudd ba addis wax ko ne dana ca xew nga gëm ko mën ko waat ne kumpale waaye na ko alxuraan waxe ak na ko addis waxe noona lay amee dara du ca rëcc mu jox ci misaal kan nashri ni ki wisaaroo ga baa nga ne kan nashri ni ki dekki ga maanaam bu yàlla walloo bufta bi lépp lu amoon lu dekki dekki googu kenn ku ne ne palet ci bàmmeelam fi la mbir mi tàmbalee wal xashri ak pang ba pang mooy dajale xam nga nit ñi dañoo tasaaroo ci seeni bàmmeel ku nekk bérébam ñu bëgg leen a boole nag jiital leen ba taxawal leen ci benn béréb àtte seeni mbir jiital googu ak dajale googu mooy pang ga wakal misaani ak lu mel ni balaas ba daa am balaas boo xam ne alxuraan wax na ko ba tàyyi dañ cay peese jëfi jaam bu nekk tamuy balaas bu xereñ xereñ ba nga xam ne liy wax fépp bàkket sax li tuuti tuuti da cay feeñ su ko lu baax la ëppee mbaa safaan ba ëppee ko lu baax la da cay feeñ koo xam ne lu baax am moo wat nag bu bokk ci ñuy taxe koo xam ne jëfi safaanam moo wat su fekkee yërmaande yàlla dabu ko mu daal di bokk ci ñey ñàkk a texe wal xaw bi ak déegu yonante ba dafa naan goo xam ne naanu teraanga la yàlla jagleel yonent bi te xeetam bi ku taxas naan doo marati mukk nee nañu la cay taxa naan mooy sax ci sunna te sori bidaa mooy tax bokk ci xéewal googee nga gëm ne ba tey loolu lépp lu am la wal jannati ak ajjana wal niiraani ak sawara ya sooy gëm bis penc da nga cay dugalaale àjjana ak sawara ndax àjjana kam teraanga la goo xam ne yàllaa ko jagleel ñi nga xam ne ñoo gëmoon sawara it këru tiis la gu doy waar goo xam ne yàllaa ko jagleel ña weddi woon mbaa ña moyante jéggalu leen kon gëm àjjana ak sawara yépp bokk na ci gëm bis penc siraati ak niki siraat wal muróori ak romb ga siraat aw yoon lay firi nee nañu nag daa am ci bis penc yoon woo xam ne wute nañ sax ci nam mbindoo dëgg-dëgg waaye maase nañ ci ne kuy dem àjjana ak kuy dem safaan ba muy sawara ca ngay aw te kenn ku ne na gëmam ak jëfam tollu woon rek la cay gaawee dana am ñu gaaw a gaaw ba mel ne melxat gu ne raay daal di làqu am ñu yeex a yeex ba mel ne ku kuy raam mbaa kuñ am ñoo xam ne sax dañuy far daanu ca sawara wa nga xam ne moom la siraab tiim duñ jot a jàll sax ca genn kër foofaay far soppiku seen kër ngay gëm nag jëmmi siraab ba noppi itam gëm romb googu ne romb googu lu wóor la lu am am la wal xisaabi ak xisaab ja ngay gëm réglé gi nga xam ne moom la yàlla réglé jaamum bu ne nga xam ne nga xam ne réglé ga suñu borom da ci yéex a jublu waaye bu ci jubloo moom lu gaaw gaaw lay doon ndax gis nga mu ne inna allaha sarixul xisaabi waaye da ciy yéex a jublu lool nag ba nga xam ne mujj sax nit ñi taxawaay ba day metti ñoom ba ñu jekk woon jekk far leen yóbbu sawara ñu noppul sax moo leen di gënal taxawaay bu yàgg boobule wa ka shafaxati nabi ak niki ramum yonante ba wal xiqaabi ak mbugal ga bokk na ci mbir bis penc ramu gi yonante bi ramoo ak sax gaa yu baax yi ci des ramu googu lu sax la lu wér kon nga gëmaale ko mbugalit koo xam ne yàlla war na ko koo def te jéggalu ko muy ko weddi muy ko moy ba tey loola lu wóor la nga gëm ko ne ñu xéewal ak teraanga amee noonu la mbugal ak mettital amee ci coobare yàlla yooyu yëpp mbiri bis penc la yu xaasa bu def na xisaab almar u cam sax alal xitmiiri ci lu toll ni xitmiir ma al fatiiri ànd ak fatiir waxala naqiir ak ci naqiir ascam muy nit rek dafa wax ni nit buñ dee seet ay mbiram keroog bu ñu ca xeeb dara dara lu toll ni xitimiir mbaa mu toll ni mbaamu mbaa mu toll ni naqiir sax daañu ko seet fay ko ko mu xamal la lan mooy xitimiir ak lan mooy fatiir ak lan mooy naqiir te yooyu dañoo nekk ci doomu tàndarmu waaye wuute nañu wata mu ne wal farxu teqale ga bay na luxati naqiir yi nekk na ci diggante luxati naqiir maanaam la naqiir di firi ci luxa wa luxatil fatir ak luxatil fatir wal qitmir ak qitmir nee yetti baat yi am nañu teqale ci prix nga déglu nag kon nee mu teqale la ko kenn ku ci nekk luñ ca jublu naqiiruha naqiir seen am nañuy jàng zëhran nawaati nekk na ci kaw kemb ba am na ñu jàng zëhrun nawaati moo di kaw kemb ba mbaa nga ne bitti kemb ba nee na naqir moom kembu tàndarma soo xoolee ñamb ba mu set nga tëral kemb ba xar-xar ba féeti suuf nga xool ca kaw ga nag day am as xóot soo xam ne su tuutee tuuti la loolee moo tudd naqir wal fatilu fatil yakunu dana nekk fii batniha ci biiram ba mayis na nga ràññeele yaa nabilan yow aji xellu fëccil moom mooy la nga xam ne mooy nekk ca suuf kemb ba moo tax mu ne biir ba te di xaw a nuru as wëñ da wax as karan muy as wëñ daal lay nuru loolu moo tudd fatir wal xishratu derwa al bayda way aji weex fi tafsiri ca prima hiya moom allati mooy la nga xam ne yaddoxoona danañu ko wooyee bil miir yi ci xitmiir am na der weex woo xam ne moom wu fis la moo gën a yomb xam léeg-léeg mu ànd ak kemb bi léeg-léeg mu ànd ak ñam wi te am ñi wax naa boo koy lekk day metti sa biir der weex woowu moo tudd xitmiir yett yi nag li ñuy tuuti tuuti ku ko def ci lu baax ba ca safaan ba di su ko xeeb des na ko seet fay la ko mu tombeek ci alxuraan fa yaamal مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره موي كودخلو تاني او سانغلين تي اويو دا نكو غيس ني فاي كوكو كودخلو تاني او سانغلين تي سافان موي او اي موي لو باخوت دا نكو غيس ني فاي كوكو ويقعد لتابي القصاص فينتوغا بين جما ديغنتو نجك او نجك تي ولاف موي لو خامني yàlla saxalu ko béjjën te ay moroomam ñu am béjjën mel ne xar wala bëy wala nag wa ba na xar naa ak diggante aji am béjjën li àdduli ngir maandu sàmm foofee nee na yàlla ni mu maandoo àgg na ci bu bis pencee day taxawal bahima yi mel ne xar yeeg bëy yeeg na yi ka nga xam ne moo amu i béjjën te daan daan ka amuti béjjën yàlla dindi béjjëni ka amani béjjën daal fi saxalal béjjën ka amuteeni béjjën ndax ka amuteeni béjjën mën a fayu ca ka ko daan daan ci bañ nekki àdduna gannaaw bu ñu fayu xantee ba àggal nag suñ boroom delloowaat leen ñu suuf ndax ñoom bokkuñu ci ñi dem àjjana ba sawara su boobaa nag ab yéefar da di ñeex banaa ak neexoon ba mel ni ñi rek yàlla soppi ma suuf moo mel ne ñoom wa yaqulul kaafiru yaa laytani kuntu turaba mu ne nag ndegam bahima yi sax dañuy fay waxante noonee te gis nga ne ñoom amuñu woon xel ci àdduna bay xam bay xam la ñuy moytoog la bañ a moytu kon rawante na doomi aadama yi nga xam ne dañoo amoon xel xam lañu war a jàpp xam lañu war a bàyyi kon xam nga ni seenu ko fay moom dana doy waar lool lool shakartu sant naa ko moom yàlla xalaa firaaqiya ci sama teqalikoog alxisaaba xisaab wa jaalihi akuk defam kulliyati sama lépp xayra xtisaabi mi ngën ji sàkku tuyaaba way woowu sëñ bi da koo delloo ci boppam daa wax ne man day sant naa yàlla ci fi mu ma jaarale ci àdduna mooy saa xisaab amatuma meññi xisaab bu ëllëgee yàlla def na sama lépp lépp muy aw yiw ak tuyaaba amatuma dara lu ñuy lañ bat deseetuma itam dara dara lu lu baax rek lu yàlla gërëm loolu taxal na mu bind ab leetar maam Ceerno Birahim ne ko man kat ndegam yàlla xisaab na ma ba àggal bëgguma bu ëllëgee ñuy xisaab kenn te sama jëmm ji tax kon nag bala maa kenn yotati bala maa kenn yotati dara ci alali àdduna na fay ay boroom fay ay àqam bu mat ndax bëgguma bu ëllëgee ñuy xisaab kenn te sama jëmm ji waral ko mawtun dee suaalun ak laajum bàmmeel wa xadaabul xabri ak bugalub bàmmeel yàddu xulu dana tàbbi mooy dana dugg fi ci bis ba alxasi mi bay aji fadri na xam nee na bu ñu nee war ngaa gëm bis penc xamal ne kon boo gëmee bis penc rek gëmaale nga dee ak laajum bàmmeel ak bugalum bàmmeel ndax daa fekk dee ak laajum bàmmeel ak bugalum bàmmeel bokk ci yi ñu war a gëm mu ne nag boo gëmee bis peñ rek yooyu duggaale na ja ndax idd ngir alxiyaamatu bis penc ni ñaari bis ci la suxraa ba gën a ndawe mamaatu ma insaanin mooy deexu képp nit wa ba andaxaa nekk na ci gannaawam al kubra ba gën a wa tilka boobee nag annafxu moo di walga fi sóori ca bufta ba laa ci yàlla bu dikkal ma bihi sama njaay mi fasxun genn firi firi mooy tebbi ndax bis penc na day ñaari bis bu ndaw ak bu mag bu ndaw mooy la dalee ci dee ak dugg ci bàmmeel ñuy laaj ak bu dee ku ñu buggal mbaa ku ñu xéewal yu dund bar sax nga la dalee foofee ba kenn yàlla tukkal àdduna ci wal bufta gu jëkk gi diggante boobu mooy bis bu ndaw xam ne kon képp ku faatu rek dal nay tàmbali bis pencam bu ndaw bis penc bu mag bi moom moom la ñëpp bokk mooy su yàlla digalee malaaka bi ñu wax Israfil ne ko koy njëkk a xam ne muy tukkal adduna lépp lu amoon du rek bu ñëpp deexee nag bañ teg ci ñeent fukki at yàlla doo digal Israfil ne ko walaatal buft bi su ko walaatee wal googee nag mooy walu dekkal nga lepp lu amon ru dal di dekki bu ko defee ñom ñep yalla taxawal leen ci ben bërepp ke mu jëk bind ke mu jë bind dal di àtti seen bir ba ñeñ ñu ne mujj nek ci seen kër ñe ci aljana ñe ci safan ba muy sawara da daaneele li jaayante yalla yonent bi yalla bu ko dara te bi man nga ne sax du ak ñaan li mu bëgg a wax rek mooy li ma jaayante yàlla yonante bi kat dara du ca tebbiku ndax bi mu taalifee yi moom daa fekk digganteem ak borom àgg foofa kon noonu mooy li ñuy bis penc mu ci bi ci mujj nag mooy gëm ab dogal fas ni ab dog la fil imaani ci gëm ga bil qadari ja dogal ba ëllësi ba nga xam ne laay wajjif du jubale ilal naazimi jëm ci aji way ji shay an dara minal qadari ci nax nax dog bi nee na ci laay waxee li ñuy gëmee ab dogal dogal bi nag nee na du ci man mii taalif dara lu sellut lu sell rek la yàlla dogal mu jëm si ci man imaanukum seenu gëm bi qadri rahmaani ci dogalum aji yërëme ja al akrami ka gën a tedd al mu amini kay aji wóoluloo al mën naa ni kadif xéewalaakun baa nga ne kadif xéewali kat tasdiqukum mooy seenu dëggal bi ànd ak kullamaa ci nag lépp loo xam ne waqaha tàbbi na te mooy xew na fii sirrin ci lu nëbbu aw fii alanin wala ci lu feeñ xay su yaqahu ak fu mu mën di xewe fu mën di tàbbee bi ay mi rabbina nekk na ci xamuk suñu boroom wa bil iradati ak ca nameel ga wal qudrati ak kàttan ga allati ga nga xam ne tur yi dana wane ifaadatan njariñ gëm dogal moom nee na mooy nga gëm ne tombe mbaa rëcc amul lépp lu am rek suñu borom ci boppam da ko rëddoon ne dana am ci waxtu sàngam ci béréb sàngam ci dayo sàngam bu ci àggee itam amee noonee nga xam ne moom la ko rëdde woon moo xam day lu làqu nag moo xam day lu fees waaye moom rëcc mbaa bi mënta am lépp rek yàllaa koy dogal ci coobareem ak kàttanam gi nga xamee ne dara tawu ko xayran moo xam dañu aw yiw ka baaxati xibaadillahi mel ne topp ñenn ci jaami yàlla yi aw xaq safa wala mi aw safaanam ka sax yi niki jëf fil manahi ci ñi tere aw kaan wala mu nekk xol di ajneex ka tabaadil muslimina niki yoolu julit ña aw kaan wala mu nekk murran di ajweex ka ci naqari ka iqabil mujrimina niki ci yéefar ya la xew neena man na doon aw yiw niki gis nga gis ñen ci am yalla yi ñu boole gëm ko ak rafetal ga yiw la ndax la ci suñu borom ci gëreem ak aljana ba itam muy weddi ko ak moy ko jëf lu mu téré xam nga ne aw ay la tax day jur aw ay waaye yooyu yëpp kat xamal ne ci cosaan moom yàllaa ko dogal dong ndax muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ba mu ci toogut defalul defalul yàlla dara lu tax yàlla jekki ja gënal ko ba mu gën ci mboolem ñim sàkk ba tey ku mel ne abo jahlin deful dara yàlla njëkk muy juddu ba tax yàlla def ko mu texee de noonee kon nag lépp rek dogalum yàlla ba tey loola la xew mën naa nekk lu neex mel ni tuyaaba ci yàlla yi fay ñu gëmoon tey topp mën naa nekk lu naqari mel ni mbugal gi yàlla yi mbugal ñëwenti woon tey mooy loolu lépp ni la ko waxee rek xamal ne ca dëgg-dëgg dogal baa waaye amul kenn koo xam ne ñëkk ngay juddu defal nga yàlla lu tax mu xéewale la gëm mbaa tax mu xañ la ak gëm déedéet lépp rek dogal baax teewul nag jaam bi wara a sabablu rek gëma ko topp ndax loolu dañ ko gàll ci loosam ndax nekk ma ëpp naan sii mu nekk xam nañ lépp yàlla te du tee la mu bëgg day waaxu di ca farlu di ko wut ragal da koy daw noonu la war a def nag ba tey ci gëm topp te bàyyi yàlla nag fa kullu shay mépp mbir xadd xew na rek fii zahirin ci lu feeñ aw baatinin wala lu nëbbu qadaru rabbi dogalub sama borooma alqaahiri kay aji not nee lépp lu xew rek moo xam lu fes la bo xam lu làqu la mu yalla waye tobe rek balu ci rek am amut qadaruhu dogalam ba moom yalla qada wa matna al munami badiya bila qadarin ci nakh nakh nax li man jëm ci ka nga xamne ne yuhibbu dana ko sopp wa mahaate mu far ak darara lor han walis ko neena yalla man na sopp ab jamam sopp gam ko sopp tax lepp lu mu bëgg bu di ko ko jox di ñoti lu bax diko andil diko sori lan lepp lu ay ak lu bon diko fegal lor lol nak la tax mu sopp jaamam bobé defal ko loola ci ciobarem la ak katanam ak namelam waye du lu ko jaam ba defal ba dara dogal ba ñew rek loola sopp ko mu def ko adaruhu dogalam bayit sa mangna al hiqaba bugal ga wal hisaba ak hisab ja di xeyri man dem ci kul ka nga xamne yuhibbu ba dana ko sopp al hijabi and ak kiray la kiray moy baras bu dox digante jaam bek boromam bu dee koo xam ne yàlla sopp ko te kat na tax yàlla sopp ko ci coobareem rek la ku yàlla soppul nag nee na yàlla day dogal ci moom jiital bugal ak yisaab ju metti ak baras bu fat digganteem ak moom rek lay doxale digganteem ak moom loolu lay dogal ci ka nga xam ne sopp ko te lépp coobareem la ak sañ-sañam wa wajaba war na al imaanu gëm ga ne ànnal asara naka jeexit ja di rabbinaa ñel na sunu borom wala yëkkoonu te du nekk lil walaa ti ñeel mbindeef jeex it mooy li nga xam ne mooy feeñe ci jëm ji mel ne moo ko jëf te fekk na ci dëgg-dëgg nee na xamal ne lépp lu ci jëmm mel ne moo ko jëf xamal ne yàllaa ko jëf waaye ci waaye ci dëgg-dëgg jëmm joojee jëfu ko mel ne boo séenee asamaan si taw suuf si daal di sax gàncax xamal ne lépp yàllaa bu defee ne taw ba ak suuf si ñoo saxal déedéet boo gisee nga lekk regg wala nga naan màndi xamal ne du ñam woo moo reggal wala naan nga moo màndal sawara boo ci tegee dara mu daal di koy lakk xamal ne du sawara woo yàlla ci bopp moo lakk ndax xam nga ne sawara mën naa yaay ji lool ñu def ce lu war a mën a lakk te du lakk nee ne Ibrahim ci sawara wa sawara wa daa yaay joona yaay ji ba nga xam ne rab yi naaw di tiim sax dañu daanu dee kon nag la ci dugal Ibrahim te mucc ànd ak jàmm ko set ci moom sax sedd boo xam ne kañu ko dogal baax nga xam suñu boroom daa wan doomi yi sabab yi ngir bëgg lu waay bëgg xam ne lee mooy bunt bañ koy wute nga waaxu wutee ko ca loo ragal xam ne buntu bee dañ koy làqoo nga dem làqoo ja loo rek la defee sabab waaye ci dëgg-dëgg moom ci boppam lépp mooma loolu nag ñu wax la ko gëgëm ko nangu ko ci sa yomb na waaye nag dama dem bu mën laa gis lu may loolu mën laa nangu lu may loolu nag waaw kay loolu moom moo jafe te ci dëgg-dëgg moo yaqiin te it ci foofu lañu ñu rawantee moo tax mën naa lay si yekkoon du nekk fii jamihil aalamiina ci mboole mbindeef yi mu asirul aji jeexital fii asarin ci jeexit maa jum man di doon daal lii al yaqiinu moo di wóolu ga nee na mboole mbindeef yi te lépp ay mbindeef lañ ba des yàlla amu ci kenn koo xam ne mën ngaa def dara dara dara lu tuuti tuuti jëf lu mu néew néew ak lu mu làqu-làqu ak lu mu sew sew moog lu mu rëy rëy ci yemoo xamal ne yàlla kam feeñ ca moom daa mel ne moo ko def rek waaye ci dëgg defu ko kon nag jaam ñi ñi ngi rawantee ci xam ne lépp yàlla am ci ñu koy teewlu ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi teew lu am ci ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi teewlu màggaayu yàlla ak soppandikoom ci mbir yi am ñoo xam ne nag daañu dem ba mbir xewee seen xel dem ci leneen lu bokkut yàlla gannaaw ba nag amaana ñu wàññeeku delluwaat ci yàlla foofu nag fi la ñu lool lool kon al yaqin jooju le lu mat a sàkku la lu mat góor góoru la sëñ bi sax moom daa wax ne moom sëñ Tuubaa bi taalif lii mës gis ci mel ku may yàlla te du gis mukk ci benn mbir ku may yàlla mooy ba mu ne huwa allazi lam ara gayrahu wala araahu fi cheyin hada wa nawala ba tey nee na woon ashkuru fa shukra muhibbin lam yara qattu siwaahu wa siwaahu lan yara yàlla mooy nga xam ne dama koy sant santuk jaam bu sopp boo xam ne mës a ci dara lu may moom te ci gis ci dara lu may moom léegi nag jeexal nañu bunt bi nga xam ne mu aju ci gëm bëgg a tàmbali bunt bi nga xam ne mu aju ci fiq ñu koy wooye al islaam wéyee santaane yàlla ci kaw suuf diine ji daa tudd lislaam waaye nag buntub ñaareel bi itam des koy wooye islaam jublu ci wéyee li santaane yàlla ci kaw suuf كم نخويكو فقه كم نخويكو شريحة بتاي ونالي نه باب لي أبنت له في الإسلام يجي ويله سنتان يالله تأوصوف إسلامكم شيء الإسلام يا أيها الصغار ينداوي لمن يال يالله بيغا خمنه له يال نكو الدنيا أدنى وتلك الدار أقوغل كر ذكر الإله ميت الدبور به وصلاة الأجل وصيام أكور xajjun ak aj zakatun ak natt asaka kullu si képp ci yuraamu def na ko sàkku xatman mbir mu muy aji war mag ñi buñ masaa di jàngale naxwu dañ koy takk ci baat sàngam day boo déggee ñu jógale mbir ma nàngam xamal ne kon la fi mu nii baat boobu jógale mbir moom wala mbir mu may ak yu demee noonu daa am lu war a doon ci naxwu nga xam ne kii jàng naxu bu déggee ñu jógale baat yi noonu rek mu daal xam ne baat boobu nangam la ci naxu loolu nag lay jëriñ ñu jëlee ko ci mag ñi ba léegi sëriñ bi dane yéen gone yi su ngeen bëggee wéyale santaane yàlla ci kaw suuf yàlla mi nga xam ne moomam adduna moomam alaxira moomam lépp xam leen ne kon sëriñ bi dane yi su ngeen bëggee wéyale santaane yàlla ci kaw suuf yàlla bi nga xamne momum aduna momum alakhirah momum lépp xam leen ne kon lislaam day amna na juróomi ponk ponk mu jëkk ba mooy seere ci saw làmmiñ ne la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam seere nga seere baat boobu ci saw làmmiñ bañ xam ne yow ab julit nga ci la àtte àtte julit loolu moo dellu ci fiq bi maanaam moo dellu ci zahir si gëm gëm gëm baat bobu nak fas ko ci sa xol la mo delu ci iman buntu bele nga jall nga xamni kon seeres la ilaha illallah muhammad rasulullah day ñew ci gëm ñew ci fiqh manam day ñew ci tawhid ñew ci fiqh ndax fas dañ koy fas ci xol ba muy delu ci iman muy gëm nga muy tawhid ba seere gañ koy seere ci ñu wa ba nit ñi xam ne kii ab julit la di ko àtte àtte julit loola mooy del si ci fii nga toll muy fiq kon nag canel islaam la bi mooy joox yaari yi seere ne ay buur boo xam ne jaamu nga daa am njariñ ñàkk gaa jaamu am lor Muhammad it ndaw la lu yàlla yónni loolu benn ponk la ba ca topp nag mooy saxal julli juróom muy ñaar ba ca toppaat moo di woor weeru ramadan muy ñett ba ca toppaat mooy aj màkka ci kumu war muy ñeent natt asaka itam nag ci kumu war muy juróom yooyu mooy ponk lislaam yi su ko defee nag da koy wax benn benn day njëkkee kon tudd yàlla te mooy seere ñaari baat seere yi fas lu li ab dog fi zikri ci tudd yàlla wala zu laa ilaha baatub laa ilaha amul benn buur illallaahu ndara yàlla muhammadun muhammad arsalahoo yónni na ko al ilahu buur ba salla yenn na dolli teet nga allahu yàlla assamihu kay aji dégg alayhi ci moom bi salaamin ànd ak dolli wóolu fii jamihi ci mboolem saxaabaam ya xan aalihi yi ñoñam baa nga ne ci gannaaw ñoñam afdaluma moo gën lépp loo xam ne nataqahu tudd na ko man ka nga xam ne yadkuru dana tudd fa kullu man képp koo xam ne ankarahu weddi na ko fa yaxsaru dana perte nee baat yi nga xam ne moo di laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam nee baat la boo xam ne moo gën lépp lu ñuy wax ci aw làmmiñ ba tax ñu def ko muy màndargam gëm nga xam ne ku ko seere rek ñu àtte la àtte jullit su fekkee fas nga ko ci sa xol boole ji kon jullit nga ci biir ak ci bitti bu fekkee da koo seer ci làmmiñ ba su fekk nekkul ca xol ba daana am ci jamono yonante bi ñu koy def lool ndax bëgg mucc ak seen alal su fekk gëmuñ yonante bi loolu moom ak naafeq lay doon nee na baat boobu nag képp ku ko weddi da nga perte adduna alaxira maanaam képp ku weddi ne yàlla rekk du buur mbaa mu weddi ne muhammad yàllaa ko yónni dana masa sa toogi bis ba xam ne yàlla rek kay buur toogi bis ba xam ne Muhammad ndaw la lu yàlla yónni woon su ko defee nag ki nga xam ne moom day gone fekk ndeyam ak baayam di ay jullit ñu ànd ak ñoom te bu mënee di wax baat boobu ñuy julli muy julli daal ne doon jullit xanaa sopp nañu rek baayam baa kilifaam sako baat yooyu wax ko li muy tekki tam bu wér a wér bu ko defee mu yeesale ko lislaamam rek waaye nega moom ndeyam ak baayam ay jullit lañu mu ànd ak ñoom ca loolu rek jàpp nañ ne dal nañ doon jullit baatub laa ilaha illallah li muy tekki mooy amul kenn kenn koo xam ne doylu nga ci sa bopp sëkk sëkk aajowoo kenn mbaa lenn ku may yàlla yàlla rek a def loolu nga tekki ne amul kenn koo xam ne ñëpp la aajowoo lépp la aajowoo kenn mënta dem war la gannaaw ba tey kenn melu noonu ku may yàlla loolu mooy pirim laa ilaha illa allah muhammad nag boo gëmee rek gëmaale nga mboolem yonante yëpp yëpp yëpp ak lépp lu a gëmaat ci rek boo gëmee yonante bi gannaaw ba nga gëmee yàlla boo gëmee yonante bi rek gëmaale nga leneen lépp lu ñu war a gëm ci lislaam xam ne kon laa ilaha illa allah baat la boo xam ne ëmb na lépp lépp lépp li ñu war a gëm ci lislaam wa man adaama ku saxal dikkërëxoo ak tuddam moom baat boobu mustaxdiran mbir mu muy aji teewlu ko ci xol faraabixun kon aji tonewu la wala yu laax yi te du taseeg kadaran benn nax-nax dañoo sopp na ngay saxoo sikkar baatub laa ilaha illa muhammad rab tey teewlu waale maxnaama maanaam tey teewlu waale ci sa xol li baat bi tekki loolu moom ku ko saxoo ba mujj sa yaram ak sa deret da nga ci xamee ci ay secret ak njariñ loo xam ne yàlla dong dong moo mën a xam nu muy toll te itam xamal ne da nga am taxi gu mat da nga am sell goo xam ne dara dara luy nuróog ak ñàkk sell du ca rax mukk mukk du ko laal moo tax nañ kuy bari la sikkar baat boobu kon nag lolu moy, dog bi aju ci seere ñaari baat seere yi te moy la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi wa mu jall si julli juroom faslu ni ab dog la fi salawaati ci julli ya al xamsiya di juroom julli juroom gannaaw bu gëm yalla jàllee ño gëna mag ci lislaam moy julli suba tisbar, takusan timis ge bu desu ajuma julli ajuma mooy wecc ci kam war waalam xamal bi am na ci naka julli ya alxamsa ya di juróom faridatun farata lañu xat xan ci lu dog bi nee lu dog mooy ci lu amul benn werante rek waq yi te yàlla na la mooy yàlla nañ la fekkal labsan am lant bi zikri ci tuddug alquran wa sunnati ak tuddug hadis wal ijmaahi ak dajeeg fóore xamal ne julli juróom farata lañu ponk lañu lislaam amul benn werante alquran wax na ko hadis wax ko mboolem borom xam-xam yi maase ci wa man yakun ku nekk xalam tinaayin di nekk ci bañ min ha ci julli juróom jaaxdan ngir weddi laxaa ñeel leen fa huwa kon moom kal murtad di mi ngi mel ni aji murtad maanaam ku génn ci islam fil hukmi ci àtte yustataabu def na ko tuubloo jiimal xaddi diirum ñetti fan fa in yatub ndéem dana tuub yut rakk kon def na ko bàyyi wa in lam yatub ndéem tuubut taqtulhu kon rey ko bi say fi ci jaasi sharixatu nabi yoonu yonante bi salla yàlla na dooli tedd nga allahu yàlla alayhi ci yonante bi bi salaami ànd ak dooli wóolu fii aali ci ñoñam wa saxabi yi ak ay saxaabaam alxukkaami ña way àtte nee ku weddi waru julli juróom ba di di sax leneen loo xam ne lu fës la ci lislaam mel ne weeru koor ba aj ba asaka lu mel noonu ku nekkan ci islam ba yàgg wëlbati ku di dara ci loolu dañuy jàpp ne léegi moom murtat na maanaam wax na lu ko génne ci lislaam ñu ne ko nag léegi yow kat génn nga ci lislaam te lislaam nangu dugg ba noppi xam secret ku génn dem di ko tas loolu moom du ko nangu léegi kay day lay may ñetti fan nga tuub bu dee julli gi nga weddi woon ne julli warut nga gëm ne julli war na te ko def bu dee leneen tam la weddi woon mbaa leneen la defoon ba yoon ne ko wet ba ko muttan nga it na deltu gannaaw ca loolee muy tuub ga balaa am ñetti fan su amee ñetti fan nag te nangu wuta deltu gannaaw dañ koy daal di rey yoon rey na ko lim ne yoon yoonante bi rey na ko nag bu daal bu daal di julli ci yoonante bi dafa fonk loolu yonante bi ba su ko tuddee rek faaw mu julli ci moom door a jàll daal di ne yàlla na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm moom mbokkam yaag saxaabaam ya nga xam ne ñoo xamoon atteye te di ko wéele boole ci kon diirum ñetti fan ñi moom bu tuubee rek ñu bàyyi ko waaye bu nanguwut a tuub rek nag ñu rey ko buñ ko reyee dañuy jàpp ne ab yéefar lañu rey ndax yëmaliwuñu weddi waru julli ak taayal rek bañ a julli bañ rey la daañu wax léegi ci kanam ku taayal rek bayoon rey ko ci julli waaye kii moom daa weddi waru julli daa wax ne moom tàyyeelu daa gëmul ne julli lu war la kooku nag bu ñu ko reyee kon ci kaw loola ab yéefar lañu rey ba tax na kon walay sa yuxsalu deefu ko sang walay sa yukk fanu deefu ko sang wala lafoo dee di ko ñeel asalaatu jullee lay sa yuddu fanu deefu ko suul fil muslimiina ca armeel jullit ña fal imaamu ilimaan ba yursil dana yabal shaxsan jëmm yuwaarihi toj dana ko suturaal wala yustaqbalu te deeful jubale baytul xali néegu aji kawe ji te mooy kaaba ga bi ci waa wa maalun te alal yaxsulu toj dana am yu caxalu def na ko def fii bayti maalil muslimina ci baytu maalub jullit ña ku mel nii weddi warug julli ba ñu rey ko ca loola ñu jàppi ko bi loolaay tax deesu ko sang deesu ko sang Dia ko jullee dia ko suul ci armel julit ña xana kay ngir ormal bi doomi adama ji na iliman bi yabal jëm jo xamne mo moo gas rek suturaal ko sul ko tayit ken du ko jëmali mukk ci kaaba gi fete xam ya bañ koy sul mbaa lu may loola lu ci mën doon dal mom ko ken jubale kaaba gi tax bokul ci wa kaaba gi tayit bu fekke amona alal ñaka war doon ci l'islam duñ ko doon ndax doonante faaw day aajoo ñu bokk jenn diine te moom ñu ko rey ci kéefër dañuy jël alalam yóbbu ca baytimaal baytimaal mooy kees gi nga xam ne ci lañuy ñuy boole alal ji jullit ñi bokk moom te muy nekk ba maanaam ilimaan jullit ñi mu cay def maslaay jullit ñi foofu fa ñu yóbbu alalam def ko ja mu ñëw na ci ki nga xam ne gëm na ne julli war na waaye da koo tàyyee la def ba nu ko def wa man aqarra koo xam ne saxal na bil wujjoobi ci warug julli wam tanaate mu bañ min fi'lihaa ci ak defam wala lëxoo te de di ko ñeel xudurun ngant yaqaru lool dana tàbbi maanaam loolu dana xew rek fa innahoo naka moom mu wax xarun ko ñu yeexe lay doon xataa ye ji ba dikk waxtu salaati waxtu julli wa li xaboolin ngiruk nangu xadru ji ko yaakaareef na ko su mata yu umaru topp def na ko digal bi xaa ci julli ga aw tab xaa ba des min a daroor yi ci daroor yi rakxatun benn rakka wa yabqa te muy des min xayri ma fatiha ci lu dul fatiha wala atidaali du caageenu yemoo li ajli saw ni damihi ngir ñoŋal deretam ja bila nakaalin ci lu dul ñoñantal wala ci lu dul mbugal boo xam ne nee na man day gëm naa ne julli war na waaye rek moo tee muy julli ilimaan da koy woo ne ko julli kat boo xasee bokk jullit ñi ko war a waye takul ci sawar ak tayel dal di ko ne julil di ko ko digal su fekke ni ngantu du ko bàyyi ko ko digal rek tay xol nag waxtu yi su ndewé ba nga xamni ne waxtu yi duñ ko defé ñaari xaj xaj ba ci mujju duñ ko dañ koy wooye ak daroor sax ma ngay bëgg jeex nga xamne ne julli fu benn ràkk bu soti jang ci faatiha and ak teewlu bu ci yu jup sax xaju fa foofa nak fa la muñu nga yem ci agé te wuté julli ñu rey ko su nangoo julli nag ñu bàyyi ko njëkk ñu koy tàmbalee rey nag moom manees na ko xaw a jam ñaw ka xaw ko koo mettital xaw ko xupp ndax mu deltu gannaaw waaye nag bu ñu xasee tàmbali rey ci boppam moom dañuy jekki-jekki mu sotti rek waaye yooyu jamono duñ jekki nag di yeexal rey ga mbaa dara ngir jublu mu deltu gannaaw moom kay njëkk ñuy tàmbali rey ga manees naa def loolee yeexam tal ga xaw gaa xupp ak xaw gaa métital waaye nag bu xasee tàmbali rey moom rey ga rek moom moo tax ma naa fa in abandeem bañ na xatalahoo kon rey ko dul amri boroom mbir ma mbaa boroom ndigal la bi say fi ci jaas yi xaddan reyub gétan doona xatali kufrin ci lu dul reyub kéefër ndega waxtu waa ngay bëgg jeex benn laa ko xawatu faa xaj te nangu wut deltu gannaaw kon dañ koy rey ci jaas yi loolaay ba rey ga nag reyu kétan la maanaam jàdd na yoon yoon rey ko waaye téew koo nekk ab jullit nga xam ne moom dees na ko sang dees na ko sang dees na ko jullee dees na ko suul ci armeel jullit ña ña ko war a doon ba tey daañu ko doon kon bokkut ak reyu kéefar gee nga xam ne moom lañu ñu reyoon kookee weddi woon waru julli kii moom gëm na ne julli war na dafa tayal rek ba du ko def moo tax kon bokkuñuy ñuy àtte nga seetlu ne daroo lii bee mu la tudd julli gu ne ci yoonu maaj day am ñaari xaaj xaaj bi njëkk bi moo tudd muxtaar nga xam ne boo amul ngant war nga caa julli balaa jeex boo yeexee julli ga ba muxtaar ma jeex te amoon benn ngant bakkaar bu rëy rëy la boo amee ngant nag nga julli ci xaaj ñaareel ba moo tudd ak daroor yi gis nga ne kii nga xam ne moom moo julli daañu koy yeexal bañ ko gaaw rey ba xaaj boobee ci mujj sax dem ba nga xam ne benn xawatu caa xaj bu ko yàlla mayee ban àgg ca kanam fañ ko war a waxee daañu fa wax nga daal di xam waxtu ne fa muxtaaram tàmbalee ak fa muxtaar ba yam ak fa daroor yi tàmbalee ak fa daroor yi yam walaw tanat dama doonte rëccu na waqaala te def li xaw fi mahlakin ngir ragal alko fa lay sa yuqbalu déefu ko nangu nee kat moom mi nga xam ne moo tàyyeloonu julli bañ di koy rey bu fekkee dane bàyyi leen ma danaa julli waaye néewul bàyyi leen ma ma julli dane danaa rek jigéen kooku du tax ñu bàyyi ko dañ koy rey rek waaye bu ne bàyyi leen ma ma julli fi saasa nag kon ñu bàyyi ko ma mu julli loolu nga xamaale ko ci wala yël yi du méngoo salaatahoo julleem nga du fadlin borom nga neel li kay yekkoon a ngir mu nekk zaajiran di aji jàjji lil muslim ñeel moroom ma wax na la ne la ki taaye la julli ba ñu rey ko teewu koo nekk ab jullit ba des na ko jullee mu ne waaye nag bëgguñu borom ngëneel borom daraja ju siiw ñëw fa teew fa di ko jullee dañoo bëgg rek ñu woyofal ab robam kenn bañ koo faale su ko defee loola dana jàjj moroomam ba moroomam bu def li mu def waaye dañuy bañ su waaju baax di kilifa ku siiw teewee dal di koy taxaw mbooloo mi ànd ci yóbbu ko xumbal rob ba te tax moroomam sawar a defaat lu mel noona waaye nag biñ ko sàgganee rek bañ am soxla ca moom dana tax ñu bare bari moytoo def loolee mu def wal xabru bàmmeel ba laa yuttu masu defu ko maasale ba mu suuf rek bàyyi ba li fi nekk yu sànnamu def na ko yëkkati wala nga def na ko jégénal li ànd na koo gis naka moom muslimun ab julit la inda siyoox yi fa sëriñ sa boo déggee jéginal nag mooy bàmmeel bi buñ ko yëkkatee ba ca kaw ñu yëkkati digg bàmmeel ba ba mu sut ñaari pegg ya li nekk ci ndoddum këleem moo tudd ab jigéen buñ defee bàmmeel ni ma wax léegi nag digg bàmmeel ba gën a yëkkatiku ñaari pegg ya loolu mooy tudd ak jigéenal ba tey nag manis naa yëkkati suuf sa ci kaw bàmmeel ba ba noppi nag mu maas yi mel ne terrasse danay xamal ne la kii nga xam ne moo tàyyile julli ba ñu rey ko duñ wax ne buñ ko dee suul buñ defee pax ma ba pax mu rek nañu bàyyi bu yëkkati ah kay nañu ko yëkkati ab jullit buñ ko dee suul duñ suul rek ba pax ma maase ak suuf maanaam duñ suul rek ba mëkk ñu bàyyi déedéet dañ koy jël ba ca kaw ndax ormal doomi aadama ji benn dikk ba gën a yëkkati ko pegg ya ba lépp maa si mel ne terrasse loolu nag nee nañ ko defal kii nga xam ne moo tàyyale julli ba ñu rey ko ndax ci dëgg-dëgg ab jullit la ak njullitam moo rafetul rek ak njullitam moo ñaaw rek waaye ab jullit la kon nag duñ ko dee suul kenn du ne moom daa tàyyee loolu julli ba bàmmeelam kenn du ko yëkkati dañ ko yemale suuf rek ba mëkk bàyyi déedéet dañ ko yëkkati ni ñu yëkkatee bàmmeel yi jullit ñëpp nas sa yaxal na bidal xukumi ci bile atte al imaamu ilimaan ba alxaw bi te moo di aw fii allahi yal na doole nekk ci moom ridwaanu mu niiri jaw fii ngërëmal yàlla mi aji leeral sama xol jëw fu day firi biir waaye xol moo tax ñu wax biir daa wax ni àtte bi mu la leeralal ci ki nga xam ne moo tàyyee la julli ak ka ko jiitu woon nga xam ne moo weddi woon war julli yooyu yëpp nee na alimaamul xaw fii yaxal na ko ca téeréem boobee moom nag téeréem boobee moom la sëñ bi way fii moom lay topp itam ci bu dee wàññi farata yi jàpp yi ba di ko def juróom-ñett te fekk ne juróom-ñaar moo ci gën a siiw mu daal di ñaanal al xaw fii ne yàlla na ko yàlla dolli ngërëm moom yàlla mi nga xam ne moo leeral sama xol faslun li ab dog la fit taharati ci lab buñu weso gëm julli bo gëna mag te julli bala bax lab da ko jitu motax nak kon mu bëgg daldi wax atib lab inna taharata naka lab wajabat warna la malik manam ñu nek ci ngirum malik jikran ci tuddu alquran wa sunnatan ak tudduk hadis wa ijmaahan ak dajek fure sabata gok saxna neena lab day nu ni nak ci yoonu malik dan ko jappé moy lu war lu mënta ñàkk alquran da ko wax hadis wax ko borom xam-xam yi maase ci lab gi nak day yari wal labu baña julli wali sobe ci sa yaram maa fa ngay taxaw di julli laab googu nag mu am wóote sax am ñu wax ne sunna rek la boo ko bàyyee du tee julli ga baax waaye ci yoonu Maalik moom wax ji gën wóor mooy boo julliwaalee sobe te fàttiwoo ko te mënoon ngaa tàggoog moom julli ga du baax laab gi ci des nag mooy bu la jàpp waree nga jàpp bu la sangu farata waree nga sangu su fekkee mënoo yooyu yaar ngir ngànt wala ngir ñàkk ndox nga tiim googu laab moom ñëpp nee nañu lu war la mënta ñàkk taarikuha aji bàyyi laab bi xëyri xodrin ci ludul ngànt xoqi la loolu xel loof na ko maanaam loolu xel nangu na ko yuqutalu def na ko rey xaddan reyub jëtan doona kufrin ci ludul reyub kéefër fanqilan na nga xellu koo xam ne nangu wuta laab na mu ware te amul benn ngànt boo xam ne moo tax mu ne duma ko def xanaa jekki-jekki rek di julli noonu dañuy seet ba xam bu fekkee dafa taayeel mook ka taayeeloon a julli ñooye moo bu fekkee daa weddi warug laab kon moo ko weddi woon warug julli ñooye moo nga xam ne kon bu taayee sàmmoon teg laab googu na mu ware te taayeel rek tax dañ koy taxawal ne ko laab mënta ñàkk ndax ndegum julli mënta ñàkk te balaa baax laab da koo jiitu kon na julli ware non la laab ware ndax bu ñu ne nangam mënta ñàkk te nangam rek koy tax am loolee koy tax am du mën a ñàkk dal koy digal nag laab googu di ko topp di ko topp suñ ko toppee topp mu gàntu nag nanguwut laab gi ñu ray ko rayu jëgan ndegam nee na tayal rek moo tax du def laab googu rey géttan weesu nañ ko des na ko sang sangu ko jullee ko sul ko ci jullit ñi waaye nag du fa waa ju baax teew du fa mbooloo teew nañu woyofal ab dencam ndax ñu bare bari too def lu mel ne la mu def ka nga xam ne nag moom daa wax ne man tàyyeelu ma dama gëmul ne laab lu war la dañuy jàpp ne moo ko waxal ne man lu ma julli dama gëmul ne julli lu war la te fekkan mu nekk ci lislaam xam nañ koy jàppee ku murtat maanaam ku génn ci lislaam may ko ñetti fan mu tuub delu si nangu lam gàntu woon ñu ray ko ba tey ngay atté attewaat fi ibigir as-salatu julli la ta du mën mat abadan mukk la neexee abadan faaw illa biha ndare ci mom laap kon nak wujoobuha warug laab ba daa feeñ ci lu dok ñu wax ne kuy bàyyi laab te amul ngànt dañ koy rey mooy kuy bàyyi laab te amul ngànt julli ci boppam nga bàyyi tax bu ñu nee julli balaa baax laab da koo jiitu kon soo gantoo laab rek julli ci boppam nga gàntu kon nag laab war gi mu war nee na lu leer nàññ la lu yomba xam la faslun li ab dog la fil xabdi ci ñaaxe ñaaxe mooy soññe alal ijtihad ci farlu fi tamyiz ci ragnele bainal fara'id digante farata ya wa sunan ak sunna ya wa fi al ghuful ak ci ñak sagan han ha walis ñoom dog bi dala fi ñaax soñ la bu baax nga gor lu ba xamé say farata ak say sunna te bañ ca sagan innal ladhi naka ka nga xamne dakhala tabina moy duguna rek fi salaati ci julli wajaata mu dikkee bihaa ca julli ga fi ahsanil hayati ci gën jaarafeti melo ya bi an yusalliya ci mu jullee tamallaahu naka nga xamee yàlla amara diglee na bisi ca loolee wala ca noonee subhaanahu soree lal naa ko lépp lu ye lul ci moom xalaa wasfin ci aw melo dahara woo feeñ na واكملت ممتل الركوع ركوع والسجود اك سجود واكملت ممتل القيام تخوايبا والقعود اك جتايبا ولم يكن تنكت ذلك شيء دي اجباي درا قد جلال الفين منها بوك سي جوليغا وسئلت لاجيفكو بعد الافتراخ سي غناو نوبيغا حما ولس لاغا خامني لها نيل جولي من الفرائض تي اي فراتا wama ak la nga xam ne laxaa ñeel na julli mina sunani ci ay sunna indal xulamaa fooy xam ña wa xukmihaa ak atteb julli ga xal ndax ci moom julli ga mafrodatun lu farataal la aw mandoobatun wala lu ñu sopp la aw sunnatun wala sunna la fii maa la nga xam ne rawaw nett nañ ko falam yakun te nekkut yaarifu di xam chey dara mim maa la nga xam ne su ila laajeef na ko ko waxaalte mu wax lil fi ñeel ka nga xam ne xadd sa laaj na ko ne ko man kat afaxalu danaa def kamaara aytu ni ma gise rek an naa sa nit ñi yafaxaloona ñuy def xiina naasu ci waxtu wa nga xamee ne nit ña yaabudoona danañu jaamu daa wax ne boo seetoon jëmm ju taxaw julli fi sa kanam julli gu rafet rafet nga xamni dal mom moom na mu julle mëno ci xebat dara dara dara ndax mom taxawaay yaag jataay yaag rokkoo lu ñu xam ci julli rek lepp lu ñu xam ci julli rek andee nako ko ko taamoo waye nak neena ba mu noppé boko ko laajoon julli gi lu ci farata julli gi lu ci sunna jëmmi julli gi ci boppam sax muy atem ndax lañ ko farataal ci yow am dañ ko sopp ci yow am day sunna nee na boo ko laajoon yi du ca xam dara dara dara day wax ne man daal dama man kat damaa gis rek bu julli jotee nit ñi di defee nii ma def na ñoom rek waaye taxul nag ma xàmmee ci ay farataag ay sunnaag ay àtteeg yu demee noona julli gu mel nii nag nga xam ne kooka man na koo jullee nañ ko santaane waaye taxul nag mu xàmmee ca ay farataag sunna dañ caa moo tax mu naa faqaala wax na baadul xulamaa lenn ci way xam ña ne lan tuqbala deful nangu salaatuhu juleem nga wa xudruhu te ngàntam loolee lañ bala def ko nangu ngànt li mooy lay wi mu ne ñenn ñi nee nañu juleem googu du baax te loolee mu lay ne man kat damaa gis rek ñu defee nii ma defee noonu waaye xamante wu ci ay farataaki sunaa ki nàngam kenn du nangu ngantam loolu layam woowu te julleem googee du baax te su ko nangu loolu nag la al imaamul xaw fi wax moom mi nga xam ne moom la sëñ bi topp ab téereem way ko am na nag ñu wax ne julli ga baax na ndax yonente bi dane woon julli leen ni ngeen ma gisee may julli te kooku mel kon jullee na na yonente bi woon ne nañ jullee noona wa misluhu am ke la fi xukk mi ci arte xindal xulamaa fooy xam ña man ka nga xam ne xaddu tawat a jàpp na wudu an am jàpp xaddu sama moom yëkkatiku na xalaa atam mi ay atin ci gën jaa mati melo ba tey nee koo xam ne daa jàpp nañ ko santaane waaye taxul mu xàmmee farata yaag sunna yaag dara moo kee nga weesu julli woon te xamul àtte julli ga ñoo yemoo moom itam bu jàppee ba àggal jàpp ma baaxul day mel ne toj ma ko taxoon di jàpp ba léegi mi moom mel ni jàppagut noonu la ko alimaamul xaw fii di waxe sëñ bi nag far la jàngal ni ñuy jàppe ba nga xam ko bu ko weesoo ci kanam nag dana la wax njàpp ni la cay farata ak la cay sunna waaye fii mu nekk moom day wax rek ni nga xam ne boo bëggee jàpp moom ngay jàppe bi an xasala ci mu raxas yadayhi yaari loxoom ya lil ko ay ni ba ci ñaari tikku jare ya jéeman yetti yoon qad hasala bab amna lu ñëk dal ci japp moy da ngay jëk xol ndox mi ngay japp ndax ku ne ci genn wetam det bu fekkee soppikuwul ci couleur ba xet ba cafka ba bok la ko soppi kat yalla ko boole ndox bu li su koon moytu kon moma ndox baax na léegi kon la ngay def moy raxas sa ñaari loxo ñett yoon ba fa ngay tak montar ba nga ne bu bu dee fa muy tak jara su ko defee nag li gën mooy ñaari loxo yi da nga koy beraate loxo bu ci ne nga raxas ko ñetti yoon boo ko boolee muy juróom benn yoon waaye nag soo boolee ñaari loxo ñëpp raxas leen ñetti yoon it mu baax ndaxam sax boo boolee ñaari loxo yëpp raxas leen benn yoon it sunna si soxla woon dal nay am maanaam sunna sa am na kon loolu moo njëkk ci njàpp wa mad mada te mu galaxndiku baax du ci gannaaw ba talaasan ñetti yoon bistiyakin ànd ak soccu la tok ci tax loxo moy galax galaxndiku yetti won soccu di wax nak mom la ci gën bala nga japp ngay wut bant soccu ba bañ set nga galaxndiku tor dora tàmbalee japp teew nak bo baye bay galaxndiku jeuf sa baram fompi ko sey bañ ba jël morso bu ñagas fompi ko sey bañ ba jël borof rek awale ko ci bañ itam mu baax tabaxandiku boobu nag mooy da ngay ndox ba noppi yëngal ko yàbbi ko doo sex ndox mu wann doo ko sax rek yëngaloo ko daal di ko yàbbi fa saasa kon galaxndiku mooy sex ndox mi yëngal ko yàbbi ko la mooy da ngay def ñetti tàng tàng bu ne akub galaxndiku wa jëw wisan na daganal maa la nga xam ne laa yu watti du àggale laa yu mooy cosaan min xaradin ci gépp xarad xarad mooy loo xam ne